may wax ne SN HLM man de yàlla moo ma fi indi ci mën-mën ak gis-gisu président yàlla rek moo xam lan la ci namm mais bu ko waxee ak bu ko waxul ñun war nañu jóg parce que HLM symbole la biir Fass symbole la biir Médina symbole la biir Gueule Tapée symbole la ci lépp lu ko wër donc ñun war nañu mën a xam sans pour autant ñu wax ñu ko ne ñun suñu devoir mooy jàppante ak waa Fass defal leen yu baax ànd ak ñoom liggéeyal président de la république que liggéeyal président mooy liggéeyal Sénégal président bu ma déggee ñu ne dafa fàtte Fass daf may jaaxal koo xamante ne keroog Ousmane Ndoye wax na ko fii ci terrain football bi ku leen na ma defaral ay tali na ma leen a yokkal seeni stade defar ko na ma leen defal seen terrain basket defar place de l'obélisque yaakaar naa ne kooku bañu leen. may wax ni li ngeen def ci Hann Defar Face jàngat la ndax wane na ni fii dara mosu fee ñaaw te sama xel tey gën naa dal te monsieur directeur général dama lay yónni ñame naa la yónni ndax sa mag laa président xam ne APR fas ñëpp benn nu mosu am benn problème loolu lu jar bàyyi xel la. ñun nag boo gisee ñu sawar fee ñëw. fii ñu toog duñ fi gan ndax ku jàng école Manguier fooy làmb Joola bon fii ma nekk du ma fi gan te kuy sark Abbas Ndoy Ndoy Maali Maram bon mën nee ma borom Dakar war naa ko mën a nangu may wax nag ni euh, engagement bu nu mos a jël président àndoon ak Abbas Ndoy def ko ba ci yaakaar naa barki démb ñun nag bindoo wunu lu nu def di ko wax ci mbooloo waaye dafa am lu am solo engagement ba jëloon jëneenu jàppale jëneen ko def incha allah loolu bëgg naa ngeen dal seen xel bu baax di am nag benn appel bu may lancé ndax dafa mu wax ju am solo bu ngeen wax sànq ci ndakaaru te la 4 avril sorewul am ay saay-saay yuy wax ndax loolu buñ koy seet du feetu parti feetu état la bon buñ ko bëggee yàq war ngeen jóg taxaw ñu ànd ceeg yéen gan yi fi ñëw bu ñu ñibbi yóbbaale image boo xam ne image bu rafet la nañu xam ne la 4 avril li fi am affaire Sénégal la. dañuy fas yéene jug ñun téel suñu commune suñu bopp teel ko suñu loxo suñu bopp parce que booy seet booy seet mun naa ne ñun ñi ñëpp dëkk Fass lu ñu gën a tardeel mooy gars yi dañuy ñëw rek jaar suñu kaw jàll mais màgg nañu dootuñu seetaanti loolu màgg nañu dootuñu nangooti mukk loolu ànd defar Fass nag. buñ koy créer ànd defar Fass lañ tuddoon mais dem nañu ba benn moment waa Gueule Tapée dugg nañu ci biir bokk si waa Colobane dugg nañu ci biir bokk si kon léegi dootul ànd defar Fass mais dañuy naan est-ce que duñ ko tuddee ànd defar commune bi gars yi ne déedéet loolu dafa tuuti ndax dañuy gestu xool gis ñi nga xamante ne ñu ngi dëkk Médina ñëw bokk si mouvement bi ñi nga xamante ne ñu ngi dëkk HLM am nañu ñëw bokk si mouvement bi ba ay Ouest Foire am nañu ñëw bokk ci mouvement bi lenn nag laa leen di wax yéen autorités yi nga xamante ne jege ngeen président de la république ñun dañ leen ni ñaan boo leen ko mënee wax ngeen na ko ànd defar Fass am na ñeneen yeneen teg yi nga xamante ne ñu ngi Fass te li nga xamante ne moom la gars yi tële si ndakaaru moom la gars yi tële si ndakaar fii am na mouvement bi nga xamante ne judd na tudd ànd defar Fass te mën na si dara.